manoon naa leen dugalal ñi ma woo yëpp dugalal leen audio yi parce que ñoom ñëpp a tiitoon billaahi wallaahi wa taalaahi influenceurs yu ndaw yi yëpp xaalis bu ñu yor liggéeyul ko barki Serigne Babacar si koo ci wax day gérer théâtre mi ngi ci film yi gérer théâtre fayul Sénégal yéen xam ngeen ko cent cinquante mille la par mois contrat bu yàgg trois cent amul xaalis dañ leen di kat bu nu banqué nag moo waral ñuy dem ci place yi nii ngay gis nii fii mu taxaw ñi di fotowu nii ngay gis silib bi léegi nag ñii borom alal yi ak homme d'affaires yi ñoom la ñu wan seen data yi nii pour ñu gis leen mën a ñëw ñu man a encaisser ñoo ñoo leen di defal dañ leen di kat di leen financer dama ne la cuuj bu indisposé barki Serigne Babacar si cagala billaahi wallaahi wataalaahi cagala te seen yaay ak seen papa yi dañuy appuyer ci cagatu bi ni cagatu pour mu man leen a dundal du nu ŋaan du nu wax ñun Sénégal la nekk yéen xam ngeen li xew ci réew bi ay xale yu ndaw ñaari yoon ñett nga ne diw ubbi na bitig bu rëy fan lay jëlee xaalis bi yaay mi ngi sonn papa ngi sonn xoolal ay mbokkam ah ñaari yoon ñett nga ne mi ngi dawal Mercedes wala golf ah ñaari yoon ñett nga dégg ne dem na màkk ñaari yoon ñett ubbi na bitik Dubaay yóbbu na yaayam Dubaay nan waxante dëgg ay cagalanu borom alal yi ñoo leen di financé yaa ngi dégg bu nu bankee dañuy dem ci place yi jël seen verre sol def seen foto caga yi ñuy def ubbi seen data yi bu ko defee directeur yi gis ko ay cagalan naa leen wax ñi leen di katt ñoom ñëpp caga bu mag la cooñ bu indisposé bi maa leen ko wax barki alxuraan ñoom ñëpp ay cagalan parents yi nag am nañ si part de responsabilité maa ngi ñëw ci kanam incha allah ba ci kanam.